asalaamaaleykum mbokk yi teel a alxames ñaar fukki fan juróom-ñaar ci sawaal muy weeru koor ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñeent ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëppoo fukki fan juróom-ñett ci weeru mee ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñett ñaar fukki fan juróom-ñaar bokkul ci lim bi fàtti lim bu rafet la kon tey ci alxames ji rafet na li ñu ci gën a taamu mooy ku ca daloo alxames bi nekk sunna la ci ku ko mën mu woor ko ñaanu bés bi yow yàlla maa ngi lay ñaan nga musal ma ci jàngoro yu siti ak ndof ak ngaana ak mbooleem jàngoro yu bon allahuma inni audu bika min albarasi waljunooni waljudaami wa min sayil asqaam allahuma inni audu bika min albarasi waljunooni waljudaami wa min sayil asqaam xadiisu bis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu ngeen bëggee yàlla akub yonenteem bëgg leen na ngeen di joxe kóolute suñu leen wóoloo te ngeen dëggu bu ngeen di wax te ngeen rafetal seen dëkkaale ak seeni dëkkandoo xadis bi at tabaraani nettali na ko qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fa in ahbabtum an yuhibbakum allahu wa rasuluhu fa addu ida tumintum wasduqu ida xadastum wa axsinu jiwaara man jaawarakum rawahu tabaraani waxtu julli suba waxtaan dana tàbbi cinq heures vingt cinq juróomi waxtu yu tegal ñaar fukki simili ak juróom tisbaar treize heures trente benn waxtu bu tegal fanweeri simili takkusaan seize heures trente ñeenti waxtu yu tegal fanweeri simili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 yàlla na yàlla nangu te nangu leen amin